ci àdduna yépp ba mu daj ñépp a jaaxle ku la ni jaaxlewul waxul dëgg ñépp a jaaxle la ko dale ca penku ba ca sowu ku jaaxlewul amul te it mënuñu laa wax li leen jaaxal lan la kon nag nun ñi am yonent bi te mu di yiwu yàlla lu nuy defati rekk nan ko def ci cadre yi woowule waaw mooy sunu jàmm te di fàttaliku nag la mu wax nee na may gu ma joxe am na lu ma ca teg wala nabluwannakum wala nabluwannakum bi shay'in min al xawf waaw maa leen jox kilifa gu kenn amul jox leen may gu kenn amul danaa natt seen yitte ci bu ragal amee nu ngeen di mel jamono dana ñëw kenn du wóolu mu ni natt seen yitte itam ci xiif jamono dana ñëw loo daan bay mu dundal la at boo ko bayee mu dundal la weer waaw wa naqsun min al amwali wal anfusi wa thamarat jamono dana ñëw loo ji la nga ca yaakaaroon doo ko am jamono dina ñëw lu jàngoro tuuti tuuti faat nit yàlla ko wax nee na nag mën a du kenn bu keroogee ma seet ndax àgg na ci xol yi walla àggul ci xol yi bu àggul ci xol yi ma teggi ko àggul ci xol yi nag ma teggi ko bu àggee ci xol yi nag ma bàyyi leen ak seen bopp ba xam fu ñu koy faje ji noonu rekk la wa bashiri sabirin waaw na nga bégal ñi mu jotul seen xol waaw ndax boo dee muñ rekk mu yàqu waaw ndax muñ dafa late waaw wane muñ rekk mu yàqu muñ dafa latt waaye mu ni na nga ñi mu jotul seen xol am na ñu denc seen xol ba natt du caag mu mel ni kon nag di ko bàyyi xel di ci boole ñaan di ormal sunu kilifa yi lu nu war a ci wàllu yonent bi ñu teewe ko bu nu dee régler problème mu njaboot régler ko ci cadre yiwu yàlla wi yonent bi bu nu dee régler euh, mara day àdduna ñu régler ko ci cadre yiwu yàlla wi yonent bi nekk booleeg ñaanam kenn ku ne ba ngay dem am na loo bàyyi nit ñi am na ñoo xam ni bomb lañu defar bàyyi ko ak nit ñi di bomb baa ngoog foo ko euh, dóor rekk mu takk waaw waaye yonent bi ba muy dem nag daf ne ñaan gàngoog fu ngeen jàq ñaan leen seen borom waaw ba tax kon nag ñetti jaaxle yooyu ñoo ëmb